salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar net euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla jull ci Seydina Mouhamed sangu-sang yi di ñaan Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg loolu te wér ndax tey euh, reportage dafa spécial ñu ngi si dëkk bu sell bi di Touba Mbacké Khadim Rasoul moom mi nga xamante ni bu du woon li yàlla wax si alxuraan ñu ni ko yaay suñu yenant waaye ndokk yàlla ba nga tuddee Khadimul Rasoul alors tey suñu reportage bi ndax suba la màggal gi yéen a ko gën a xam waaye nag ndox dafa manqué ci dëkk bi daaru Xudus daaru Minam daaru Maxwa dinañ fa dem ndax dañ ñu wax ni ñu ndox dafa manqué dinañ fa dem xol population bi ndax loolu dafa am wala amul ndax loolu ay wax la rek wala du am ñoom ñoo koy waxal seen bopp bu dee ndox dafa manqué bu dee manqué wul laay ñu dem léegi léegi xool waxtaan ak Baye Fall ñoo ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal ti Cheikh Serif Abdourahmane Fall Tilala mi nga xam ne mooy yaakaaru borom kër gi muy Alaaji Cheikh Thiouna Ngom ñoo koy ñaanal moom tamit sa bët sàq yaan suñu borom gën a yokki leeram si doole sëriñ Touba Fall nag li nga ñu wax moom fii loolu rek a fi métti maanaam ndox waaw ndox moom daanaka daal dañ koy jéggaani fu ne di ko wuti waaw ndox moom fu nekk nañ koy jéggaani wuti ñoo ngi ñaanit maanaam ñi nga xam ne ñoo yor tuubaa yor liggéey tuubaa it nañuy fexe fi gën a jege Touba ak feneen fudul foofu di am ndox ndax ndox mi wax dëgg yàlla metti na wutim bi waaye gannaaw Serigne Touba nanu fekk si di ko liggéeyal dañ koy wutee ni mu ko bëggee rek waaye bu doon sago daal ñoo ngi ñaan ñi nga xam ni ñoo yor Touba yor li wàllu ndox yeeg yëpp ñu fexe daal li gën a jege jumaa ji jëm booru kër Cheikh Béthio yooyu yëpp ñu fexe daal ba mu am ndox ndox mu doy boo xam daal murid bu ñëwee. daañ ko mën a kiiwee ndax ndox moom ni nga ko waxee rek metti na la si waaye waxul fii si metti moom moom waaye waaye nag gannaaw doon nekk si liggéey Sëriñ tubaa te sëriñ bi dox li yi nga xam ne moo gën a metti si si si yoon bi yëpp mu dox ko kon lii bu ñu si dalee ñu tamit cant lay nekk si ñun waaye ñu si waaye mën a dimbalee rawatina ñi nga xam ne ñoo yor liggéey Tuubaa bi mën nañ si dimbale baax fi jege jumaa jeeg yëpp daal moo am ndox. asalaamaaleykum mooy ndox mi nga xamante ni duñ ko am heure boo ñëwee màggal si da ngay ñàkk ndox ñàkk ndox ñàkk ndox ba doo xam sax yow li ngay togg ak li ngay def dañuy obligé jóge ba fa ñuy jóge ndox ñun ñoo nga jóge ba ndar waaye bu ñuy ñëw dañuy duy ay bidon oto buñ ko teg ñu ni ñoom duñu yab ndox te buñ ko yabul ñëw ci daara ji duñu am ndox mënu jëfandikoo waaw fi mu toll nii moom bu dëgg dee dëgg rek sonn nanu kon ñoo koy dagaan gouvernement bi surtout ñoo ngi koy dagaan gouvernement bi surtout moom bu màggal jotatee ndax xam ni njaboot sëriñ tubaab bii luñ luñ ni ci ndox du leen doy luñ fi def ci ndox it du leen doy. manque ndox gi moom jégg na dayoo am na euh, kër ku nuy wax sëñ Mor Dia fii ci Daaru Minam képp ku soxla ndox sax ci këram ngay dem. genn kër googul dong lan fi xam fii ci Daaru Minam goo xamante ni fi la nit ñi di wute ci ndox di ko fi sàkkoo ci di ko am ba daaru xuddoos ak daaru minam ak lu ko wër lépp fii la ñuy wuti ci ndox ci kër Mor Diakh Mor nag di doon bi boo xamante ni ah, ku amu yaatu la ah ku amu yaatu la waa ju baax la boo ñëwee raakool bi sax lay fab roof ko ci robinet bi génne ko génn ko nit ñëpp di ci root fa tubaarikàlla xatalu ci kenn muy daaru xuddoos ak fu ne fu waa jógee ak sa oto boo ñëwee mu jox la raakool bi ah nga sotti sam sa kii ba mu xiwala lool nga yóbbuwaat kër googu dong daal dong daal lan man xam ni fii ci Darou Minam robinet boobu dong ma fi dox muy benn robine ci Darou Minam. ah ñàkk ñun de dañoo rot ba bëgg a xanaa bidon yi nekk fee sax xanaa war nga leen gis gis nga suñu bëreego yi nii mais nag ndox amuñu ko dañuy xëy root di gonti root nelaw guddi sax duñ ko dem ndax ndax root waaw fii moom moom wax dëgg yàlla ndox amu fi moom Darou Minam gii moom ndox amu fi. lan ngay wax état wu Sénégal. xanaa nag mu jàppale ñu rek nag jàppale ñu daal ci ndox moom wax dëgg yàlla bëgg soxla nañ ko lool ndax ndox moom ma a ñàkk ci nit waaw ndox moom moom nit a ànd. salaatu la fi fi kulli saarin wa fi safar